waaw man la Omar Diallo ñu koy Odie Diallo man dama bokk ci coalition yi 2016 ah, bi te yàlla da bi ñoo duggee ci coalition bi nag ay parti la ñu woon waaye bi ñu amee coalition bi ba taxawal baro amatuñ parti coalition rek moo am soo ñu ñu ooy oote waaye man ci parti bi ma duggee ci coalition mooy PPP People Progressive Party mooy eh, ñu amayoon nguur gi nga xam ne moom la Yaya Jammeh génn woon ci coup bi. man maa ngi parti bobu parti Jawara waaw. léegi gis nañ la nga dugg waxtaan ak Adama Baro ñi mënon ñi laaj rek lan ngeen fa waxtaan yeen ñaar. de li moom waxtaan ak Adama Baro nak mënuma ko woon wax fi waye dina leen won rek ne liñ doon waxtaan yeb moy pour lan moy gëna digëral nguuram gi mu taxawal ak naka lañ ko def ba jëm kanam tem mu nekk nguur go xamne nguuri Gambie yeb la tey gannaaw faluna amatul kuko ku andona mom ak ku anduta mom tey gannaaw faluna Gambie la falul. Gambie la fi nekkal te jaami Gambie ak lu yóbbu Gambie kanam rek loolu la ñoo liggéey looloo taxoon ñu ñëw fi pour waxtaan ak moom. est-ce que mën nañu xaar tey ñi topp Yaya Jammeh ci ay wàllu nit yu réer wala audité ko comme Macky ni mu def Sénégal pour ñu xoolaat ñi ñu fi bàyyi woon ñu yoroon nguur ñi saytu est-ce que na euh, euh, euh, kii lekk ñu alalu alalu réew mi. am na ñoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi liggéey ak Yaya Jammeh defuñ dara nit ñu baax lañ doomi Gambie lañ waaye gannaaw nguur giñ bugg a ñun du nguur goo xam ne dafay fayu o dafay toppa nit ñi pour di leen vérifier pour mer dëgg rek lañ bugg a doxal ñun ganaaw Yaya jamee ñun jàppoon nañ ni dafa am yu bari yooyu yoo dox na yoo jaarul yoon. kon nag ñun su ñëwee waruñ ñoo gis pour ñu toppa moom li mu daan toppa ñun dañ ñëw pour gis ne dëgg dox na jàmm am na réew mi am na boppam nit ñi am nañ seen bopp loolu nag soo ko buggee def doo mer doo fayu bi ko dama dee wax nit ñi yëpp ne. su dee Nelson Mandela mun naa ñëw mu baalale Jerry gaana Ghana baalal ko japanese yi ak américain yi ñu nekk benn léegi kon ñun Gambia gannaaw ñu ne bokk ak baay benn famille la war nañu mun a baalale bu nag fàtte waaye mun ngaa baalale waaye bul fàtte. dëgg la ñu gis ni Sénégal ak Gambie seen diggante xaw na na ñagas tuuti fan lañ mën a xaar tey ci Adama Barrow mu teg ci ay jéego. comme amone na coopération jawara jawara bi fi nekké ak Abdou Diouf est-ce que loolu mën nañ xaar mu dellusiwaat. wat jawara mu fi nekké ak Abdou Diouf ak Senghor musuñoo am ben problème suñu digënté ñun ñaari réew yi bi ko réew yi Sénégal ak réew yi Gambia bena euh, ben ben family la bu am ñaari kër digte ko gis Gambia fi amna boka mbokk Sénégal Senegal gis Sénégal amna mbokk Gambia ño bokkat lu nekk kon ken mënu xaaj xaj bopala. bopala kon nag ñun li ñu war a gës mooy su Adama Barrow faloo dëkk bi mooy njëkk ak dem Sénégal laa ne di te ñun ñoo Sénégal mënuñoo tàggoo yàllaa ñu boole te ganaaw lu yàlla boole nag det eh, nit mënu koo jaxale bi fi yaay jame toogee ay rëqa rëqa yu bari lañ am waaye loolu yëpp ci ñàkk xam-xam la ak ñàkk xam ni ñoo doxalee réew waaye léegi gannaaw génn na fi ñu am Adama Barrow te ñun ñu nekk ci gannaawam li ñoo gis ne mooy jàmm ji nekkoon suñu diggante Sénégal Bukan bi nekkon suñu diggante Sénégal bokk ak kàddu bokk ak kéene bi nekkon suñu diggante ak Sénégal loolu lañ fa delloo biko ñaan ñu bokk ben kër bokk ndey bokk bay ke mu leena man mi wax ak ki jur suma bay Sénégal la jóge te ba moo ñëw dafa bay juroom ben rakam ñew Gambia fi am fi jabar jur suma bay man kon man naka lay mëna gënë suma bay Sénégal loolu nak Gambien bo gis fi ñaar rek loolu mo fi Sénégalais bu sa yaay joggé wut ah, ah, oh, sa pa joggé wut Sénégal sa pa ak sa mam fa lañ joggé ñun tam fii am na ñoo xam ne fii lañ jógee dem Sénégal kon nag ñun li war suñ diggante ak Sénégal mooy jàmma jàmma jooju nag ñun loolu la def mu taxaw ñu dëgëral ko ñu gis ne delluwaat nañ jàmma jooju ak bokkoo boobu dellu suñ diggante moo tax dañ ne bés buñ ko joxe ba mu nekk président rek dëkk bu moo njëkk ak dem mooy Sénégal. sa kàddu gu mujj lan ngee daanale. léegi li may ñaan rek mooy pour won Gambien yi ak Sénégal yëpp ne ñun merewuñ kenn. dañ kontaan di gërëm doomi Gambia yi nga xam ne gis nañ ci coono bi ñu nekkoon ñu fas seen jom sànneel baro dañ ko sànneel nag pour gis ne réew mi ak ñoom ñëpp am nañ seen boppa am seen jàmm jàmm jooju nag ñun ñu ngi ñaan yàlla ne gannaaw nit ñi loolu lañ bébét pour yàlla may ñu jàmm ñu doxal loolu ba réew mi yëpp xam ne la fi nekkoon nekkatu fi ku nekk am na jàmmi boppam am na boppam lu la neex wax fu la neex dem fu la neex far diine bu la neex topp dicté Yaya Jammeh demoon na ba bugg a def réew yi sëriñ te yi sëriñ nag mënut a nekk Gambia suñ constitution bi dafa wone muy sëriñ muy gurmet muy kii toppa even jalang autour right bi nga am ci Gambia bi ko doomi réew mi nga li ngaa toppa ci diine loolu desal sa diggante yàlla man mi wax a nii suma papa ki ko jur gurmet la woon dafa tuub suma maam daf ko tuubal mu nekk sëriñ kon man ñi nga xamne ne mbokk yi ma am Banjul ñi ëpp yëpp bayi, lañ kon man mënumaa jël suma mbokki bayyi ak suma tante yi ak suma badje ni def ne ñoom man ma leen gëna nekk doomi Gambia lolu fitna la lay indi gis nañ li xew Soudan euh, gis nañ li xew Central Afrique ñun nak lolu lañ bañ fi su Adama falo Gambia dafa tudda di Republic of the Gambia no Islamic Republic serigne ak gourmet yi fi am ñii dem ci touri sax ak sëriñ yi ak gurmet yi ñoo am Gambia fii des na ci ñoom ak seen gi yàlla fi nga fi nga diine bi nga bëgg nga far foofu waaye pour jagar réew nag amul diine diine boo dem am na ku fa am doole am fa xam-xam boo xam ne mun naa yokk ci jàmmi réew mi ak jëm kanami réew mi ñu loolu lañ gis Islamic Republic is finished Gambia is the Republic of the Gambia ñëpp a am ñëpp bokk amul xeet amul diine ñëpp a bokk ñëpp a ci réew mi